lambda l'homme de Pikine l'homme Tay Singh wa jàmbaar ñu lay fay ya ngi am jàmm waa ñu jàmm bu baax tay mom ko ay soo coramanteur seetaan si waaw ñaar ñi bëri nga ak ñom lo gis ak tellement heure ba nga gëna dem te tane bëgg nañ làmb ji waaw barki dem dama dalal lañ njang plateau mune mom fi empereur bi wa la njang bu waxee ma wax Eumeu Sène empereur bi xaar fi nekk. non foog ñu yër ko yóbbu ko Pikine mënut a ñàkk waaw mënut Balla. ah waaw jom <laughs> xam nga entraînement fulaak fayda. si sa li nga mën ak li nga mënewul mais que le meilleur gagne. lan la war a moytu. non waru moytu dara ci combat leen amul dara lu moytu non non Balla Gaye tamit. amul leen lu muy moytu waaw mbër boo paree boo entraîné ba pare. dafa gën a jàll déggoo bi dafa gën a jàll ban rôle la ci a seen joué en tant que mag ba law mel noonu am. waa lool mooy yoon Pikine nañu bokk ndey bokk. waaw loolu lii rek la mën a demee waaw loolu moo nice. ma gis la bi bi bi amaa Baldé day bëre ni nga ci mel yow mel ni Boy Niang. waaw loolu. Franc mu ne Franc daal seen combat ak moom ñu ngi wax waaye. moom moo xaw a yàq affaire yi. non yàlla baax na. yaa ngi bëri ñu bàyyi. yaa ngi bëri.